may wax rek ni dañu sant yalla big trop ci ñëw fi tay ci département de Rufisque le député maire Omar Cissé et tous les responsables de Tahaou. et on salue au passage les responsables de yewi, qui sont présents nous ont bien reçus et nous sommes heureux Santé yàlla bi ñu visite bi Tidjam Diamniadio terre d'espoir la parce que Diamniadio nag c'est une terre bénie yàlla dafa am lu mu def ci suuf si am suuxa ak yéeneeg yaakaar gu mu def ci nit ñi ba tax na fii xolu région du Cap-Vert la woon parce que liy dundal région du Cap-Vert ci di dundal nit ñi ñuy lekk mais du dundal économie région des Cap-Vert parce que Boulen fatenifi c'était une zone maraîchère qui était une zone d'exportation qui permettait d'équilibrer, en tout cas de contribuer beaucoup à l'équilibre de la balance commerciale et à la balance des paiements du Sénégal. nous parce que foofu la nit ñi toll léegi parce que nit ki soo koy bëmax di ko jalax bala nga xam ni moom mooy suuxa ak wareefu lu tax mu doon dund nga bëgg ko xañ am na droit nag jàmmaarloo te foofu la population jam ñaajo toll dama ni ku doon def pôle urbain ci région du Cap-Vert mënoon nga tànn feneen fu dul fii parce que fii li ko war vocation naturelle am mooy mbay munoo

di gërëm ak sant responsable Rufisque yi gërëm ak sant waa Diamniadio teeru bi rafet na mais surtout dañu gënaat jàng. ana bët Sénégal ak li fi nekkoon lépp ñu ngi kaa tong-tong parce que comme ni ma keroog ci rassemblement jigéen yi dëkk soo koy defar nit ki la suuf si la ndox mi la suuf si gisuñu seen nit ñi gisuñu seen bopp ci li ngay def. suuf si fi nekkoon na néew ñii xalaatuñ suuf lu dul def xaalis. ñu ngi yàq tool yi di ko defi kër ki logement logement yoo xam ne même ñi ñu nangoo tool yi a bokk ñu ci boole wuñ leen ci mais attends c'est de la double frustration boo xam ne lu mu jur rek ñëpp ñu war nañ ko mën prévoir.